mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax teewaat fii ci 30 minutes chrono ci solution info TV alxames junne bu waxtu wi jotee ñu teewaat ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax di leen gërëm ñi seetaan yéen tamit ñu nekk ci régie bi El Hadj Modou Abdou Top ak Abdoulaye Diallo ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey nag ñu dëkk ci actualité bi doon actualité bu riche boo xam ne tey jii. liñ ci gis bari na mooy ay nit yu jug di dal ci kaw premier ministre bu senegal ak euh, lan moo leen ci mën a fekk ak lu ci mën a fekk Ousmane Sonko loolu dinañ ko waxtaanee euh, euh, système bi di bañ bañ lu ba léegi ak di bajantu te pourtant anti système lan waxoon dinañ ci wax dinañ wax aussi tamit ci ambulant yi ak taxawaay bi ci nguur gi am yooyu yëpp jëm ci résistance boo xam ne système bi fi jógee mi ngi koy def. léegi nag lan moo leen may confiance ba tax ñoom ñi revenir loolu dinañ ko waxtaanee bu ci leneen xajee ci assemblée bi aussi dinañ ko waxtaanee waaye dañuy njëkkee rek ci attaque yi ñu gis contre Ousmane Sonko le premier ministre du Sénégal ak réponse politique yi bi ci apporté saa su ne pour fàttali ni le poste du premier ministre c'est une fonction politique des fois da ngay dégg ñu ni la ministre bi lu tax muy politique lu tax premier ministre di politique lu tax ceci ou cela pourtant fonction politique la kon bu politiquee war naa politique parce que kenn waxul ni le président de la république warul politique moo tax ñoom boo xoolee sax ci seen taxawaay ak ci seen sarti parti dana woon képp ku nekk président mënatoo wéy di jiite parti moo indi jomaay bi mu nekkee président mu démissionné ci poste Pastef tey ji nekk militant simple mais kenn waxul la premier ministre parce que le premier ministre la fekk que mu nekk une fonction politique moo tax tey jii mu mën a nekk le président du parti te yàlla des fois li ñuy wax naan bii defar day mel ni kuy yàq Dieu fait bien les choses imagine la Sonko nekkoon président de la république tey démissionné ci Pastef est-ce que ci biir Pastef am na ku am ay mbagg est-ce que am na ku am dëgër est-ce que am na ku am pànk est-ce que am na ku am fitu mën a jàkkaarlook opposition bi waxuma amuñu fit bi mais le tempérament de Ousmane Sonko maanaam Ousmane Sonko benn la ci Pastef maanaam Pastef Ousmane Sonko la et les autres maanaam Sonko ak ñeneen ñi parce que risque yi muy jël parce que àddina lépp mu ngi ci risque audace parce que ki la gën a audacieux moo la ëpp li muy def résultat ci àddina mais ki la ëpp li muy maytu li ci ëpp des fois sax wërsëgam rëcc ko kon Ousmane Sonko bu nekkoon président tey jii est-ce que loolu gënoon na ci passif ci jamono yi surtout épreuve yu ñu jógee ci dix ans loolu tax lu tax yàlla def jomaay président jox Ousmane sonk premier ministre pour mu mën a continuer ay activité politique am loolu yàlla rek moo xam lu tax mu def ko loolu du ñàkk ni moo tax Pastef tey jii gën a dëgër mais gën a taxaw parce que Ousmane Sonko bu démissionné woon Pastef jël Pastef dénku ko keneen taxawaay bi ci war pour jàkkaarloog ñi nekk ci réew mi jamono yi les ennemis de la république di xeex xeex boo xam ne xeex bi jeexal doole la foofu nag laay ñëwee ci ñi koy attaqué da ngay gis Thierno Bocoum nga gis euh, benn Abdou Mbow nga gis benn Yoro Dia maa ngi ko doon tudd bee paase nga benn ma jambal Diagne benn Bougane benn ngay lim Moustapha Diakhaté maanaam boo doon lim du jeex nga xool ci ñiy xeex Ousmane Sonko man gëm naa ni waroon mën a opposé parce que opposition dafa baax da nga mais da xool ñi koy xeex lan lañuy ñuy peese ci politique déjà ci côté légalité ci côté légitimité nga gis ni ni ñuy xeexle Ousmane Sonko baaxul man tey jii dama naan est-ce que ñoom dinañ waxtaan ak ñin bokkal seen parti yi wala seen mouvement yi doogu jug parce que kurpañ fu mu jot rek lay dal kurpañ fu mu jot rek lay dal mais yow bu dee ni yow sa kurpañ mënul jot ki ngay bëreel mais mënoo ko blessé même ba ci taxawaayu assemblée bi ñoom Amadou maam Diop ak leneen ak leneen. xeex bi ñuy xeexu Ousmane Sonko man gisuma luñ ci gagné te dinaa leen wax lu tax te dinaa leen jox benn exemple ci benn mbër bu ñu doon wax nees nees ak guy gi danoo mës di bëre quoi xam man nees daf ma neexoon quoi parce que sax xorom mu ne nii surtout bii def signature contrat yooyu nees day bëre guy gi guy gi ñëw toll ni guy boobu lañ doon wax naan guy gi day naan po mooy mbëru <laughs> mbëru sooy bu bu kaa guy gi. voilà day naan po a guy gi nu mu toll sa siwtaal nees na ko nees xool guy ba ci àgg na ko man mi man mi ngay bëreel moo tax nga yàq sa yaram bi nii waaye di ko rëccu man nees dafa neexoon mën a tooñ na ko man mi ngay bëreel bëri kase tax nga yàq sa bopp nii mais di nga ko rëccu mais par la suite waxuma guy gi dafa yàq boppam wala dafa naan dara wala lii mais par la suite da ngay xool guy gi fi mu mujj naka mën nga ngay bëreel jarul lii mais ñii di. bëreeg Ousmane Sonko kii politique ni mu koy defee jaru ko quand je trouve un Thierno nga bëgg ko nga bañ ko jeune la man gëm naa ni am na ay principe am na lu mu gëm mais boo dégloo dernière sorteem alors que depuis Ousmane ko nekk PM da ngay sentir le ridicule quoi parce que Thierno gënoon naa pertinant ni mu waxee bi passé boo leen ko dégloo du ma jaar ci lu mu wax mais man Thierno gënoon naa intéressant ci man peut-être li mu doon bind moo ëpp li muy wax waaye bi mu waxee da ngay sentir ne xaw xaw na xeebu un peu da ngay sentir ne xaw na xeebu un peu te loolu lépp lu koy indi mooy xeex ak Ousmane Sonko Thierno dem na bu dugg ci yoo xam ne kenn laaju ko ko yoo xam ne defatul actualité quoi ay moo doon lakk këru jàmbur kii moo doon lii kii moo doon lee boolee ñu lii maanaam Thierno dem na ba moom waxatul ak Ousmane Sonko mais mi ngi wax ak booy Ousmane Sonko yi. maanaam mi ngi wax ak booy Ousmane Sonko yi di dal ci kaw patriotes yi xale yi nekk ci réseaux sociaux yi mais Thierno xale yooyu est-ce que xamoo ni tëbuñu rek ànd ak Ousmane Sonko daa am ku ñu yaakaaroon gëm ko am ñun yaakaaroon gëm leen ñoo ñu décevoir leen Ousmane Sonko ñëw jox leen yaakaar ñu ànd ak moom yow en tant que jeune est-ce que baaxoon na ngay ñëw di dal ci kaw booy yi man ka man booy dal ci Ousmane Sonko garaawul politique la génn na wax. génn ngeen tontu ko c'est normal mais est-ce que jar na ko jaru ko woon je pense que jarul woon ngay ñëw di daal parce que booy yi pour man yow da nga war a def politique de telle sorte que booy yi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko ëllëg nan laay def ba récupérer leen am un discours boo xam ne day récupérer les jeunes di nga Ousmane Sonko zéro pour cent non non un pour cent wala plus fort reste sax la nekkee député plus fort reste la nekkee député dem ba en deux mille dix-neuf mu am 700000 voix presque 15 pour cent tey jii mu nekk le premier ministre te budul woon ay tappale day nekk le président de la république comment il a fait pour egg à ce niveau nan la def ba convaincre les jeunes pour man ba Ousmane Sonko yéen da ngeen war di jàng ci moom xool comment il a fait ba fexe jeunes yëpp gëm ko parce que Sénégal ñu gëm nit yombul mais la fait que jeunes yi gëm ko à ce point ne ngeen di wax dëgg day lii la fait sax mu leen di wax lu amul te gëm ko comment il a fait pour réussir pour man bi ngeen war a jël loolu tax korog maa ngi koy wax ci tàkku show da ngeen jàngatul Ousmane Sonko jàng moom mooy kan loolu tax ma ni la bëri bi ñuy bëri ak Ousmane Sonko dama joxe exemple ne sa guy gi mais ñoom dañuy bëri ak Ousmane ba yàq seen bopp politiquement man loolu dama ko sentir parce que Thierno Bocoum munoo wax ni pertinent wul mais génnam bu mujj moom bu ko dégluwaatee dina ne est-ce que man maay wax waratul nekk premier ministre mérité wu ko jomaay parce que dafa am yoo xam ne waxi waa mbedd mi la mooy dafay fexe na lay. te jël daanelee jomaay pour ñëw nangu place su jomaay des des trucs yoo xam ne ça ne sert koy wax ba pare nga dem wéet nga ni may maam est-ce que li alors que Thierno mënoon naa gën a pertinent nii mun naa am dafa amul lu mu wax ci peut-être mënoon na attaquer le programme de Pastef attaquer le projet attaquer les cent jours wala les trois mois di gouvernement mu attaqué ko indi xam-xam wax ne li ñu def ci mbay mi def ko ci tabaski bi def ko ci li ci li ci li mais waxul foofu débat wu nit la indi débat wu nit nga ñëw ci Bougane débat wu nit bii wax ci Ousmane Sonko lay wax pour man il faut attaquer le projet peut-être tey dinaa leen defal consultant ci politique il faut attaquer le projet parce que fii ak yéen ngi nekk ci nit ki nit ki moom bu doon ay wax moo tax du egg fu mu egg du fa egg li mu daj nagam tey jii moo mën a nekk premier ministre di badaxal ma daal kon du ay wax moo koy yàqal mais est-ce que war ñu changer stratégie sur le plan politique au lieu de parler de la personne parce que plus que ngeen di wax ci moom day am doole parce que nit ñi dañuy gis ni iñaan la dañuy gis ni euh, de soxor la dañuy gis ni jalousie la dañuy gis ni mbañeel la nekkatul la maanaam politique adversité mais c'est de l'animosité politique te fekk yéen a ngi nekk ci niveau boobu pour ngeen am nit ñi day jafe bari na ci ñoo xam ne tey jii. biñ génnee wax ci Ousmane sonk liñ ñàkk ci wax ji gañewuñ ko ci seen sutura xaaweeku na ci maanaam dëkkale na leen foo xam ne mun a am te dëkkuñu fa xeeb na leen ci lu bari kon pour man stratégie bi ñuy doxee baaxul nga ñëw ci Yoro Dia wax naa ci bi paas du mu ci dellu si waat bi mu toog ak may mun a Yoro gënoon naa naa noonu mais après dara benn ma jambal jaañ la même chose nga indi benn Moustapha Diakhaté doo comprendre yaa ngi gis doo comprendre keneen ak keneen maanaam booy lim benn Abdoul Mbaw dem jël ay ay vidéo yi ñu monté ay xale moo da nga ñëw na non dañ ko doon yuuxoo Colobane fekk yow c'est-à-dire que ñi xamul dara sax ci montage yi nga xam ne lii montage la parce que ñu ngi naan fa violeur bi Adji Sarr maanaam des trucs yoo xam ne c'est dépassé alors que politique il faut que ngay mën a méngoo ak moment bi ñoom pour xeex ak Ousmane Sonko waxuñu ci li usman Sonko di def tey ak li muy doxal tey loolu tax ma gëm ni gouvernement bi ñu ngi liggéey moom loolu laa gëm parce que bu doon ni gouvernement bi am na ay fay mais faay yooyu la ñuy attaqué mais Adji saar la lay indil kër gu ñu lakkoon ba mu ba mu naan damay fusiller comme Bougane mu def indiwaat baatu Ousmane Sonko damay fusiller mais mais warul indi usman Sonko warul indi waxi usman Sonko dafa war a indi Bougane génn Masaalikul Jinaan waroon julli dem. Xutba Jóob mais nga nekk ci Ousmane Sonko mais bu doon sax danga ci ne mais nga waxe ci noo xam ne euh, ab sàcc ma gënal fenkat <laughs> nit ñi di commentaire des fois pour man il faut de la réflexion est-ce que ñoom am nañ ay cadre yoo xam ne balaa ñuy génn dinañ waxtaan ak seen i cadre mu mel ne ñoom seen parti wala mouvement ñoom rek ñoo fa nekk te warul demee noonu pour man sorti bu ñu war a def parce que politique dafa am li ñuy wax une communication politique pour man Ousmane Sonko nekkul nit koo xam ne kenn mënu ko attaqué kenn mënul dal ci kawam kenn mënu ko atteindre mais pour man jàngat bi ci war pour xool les faiblesses de son Sonko di ko attaqué pour man dafa des xol bi la ñuy jiital dañuy jiital xel mi. te tey jii comme chef du gouvernement la attaqué jëmmam amatul solo parce que son Sonko il n'est pas élu président de la République nan nga mën a jàpp ni pré premier ministre bi ku baax président bi ku baax la mi ngi liggéey mi ngi doxal jomaay moom comme ni Babacar Fall wax jomaay moom ça va Ayib Daffé may Ousmane moom mais bu dee mi ngi doxal te Ousmane Sonko moo yor la politique du gouvernement moo koy coordonné mais jomaay kay boo ko mënee félicité daf ça montre ko Ousmane Sonko liggéey na man des fois yi def j'ai l'impression que dañuy perdre laa tête loolu tax ma ni la bañ gi ñuy bañ Ousmane Sonko comme li mu doon wax ci nee sa guy gi maanaam xoolatoo mbër mi. mais yow yaa ngi ci yeneen ba yàq sa bopp alors que kii moom atteindre objectif am mooy nekkoon au pouvoir am ab projet am di ko dérouler léegi est-ce que jël ngeen temps wu jàngat projet bi jàngat parce que Ousmane Sonko duma la nëbb nit la bu defee discours ba discours bu jeex mais mën nga jëlee ci discours bi loo ko mën a attaqué bu dee yow am nga xel te bëgg ko attaqué politiquement mais dafa mel ni duñ ko déglu réellement ñu tëb rek di door ay coup perdu ay coûts irréguliers te des fois noonu la war a demee te loolu lépp nag li ko indi mooy dans l'opposition sénégalaise dama ci def benn jàngat mooy opposition ñoom seen biir fi na nii ñu bari ñi ngi naan Ousmane Sonko lañuy attaqué mais man dama ci am beneen jàngat bu weesu Ousmane Sonko pour man ñoom ñoo xool la nature à horreur du vide Ousmane Sonko dem grand théâtre yëngal leen parce que Ousmane Sonko boobu am na lu ko arrangé wul ñu wax koog ñàkk wax parce que munoo xëy di jàkkaarloog presse presse bi du ay nawleem parce que presse bi utuñu pouvoir bëgguñu doon député bëgguñu doon maire mais boo xëyee di dóorante ak ñoom mais dafa mel na da ngay dóor ci ngelaw li lool laa tuddee xeex bi jeexal doole <laughs> Ousmane Sonko comme bëggul woon loolu mais bi mu ñëwee mais mu yëngal gaay mais bi mu la yëngalee opposition bi jóg parce que dafa bëggoon xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw presse bi. titre yi muy gis ci presse bi ñan ñoo ko nekkee ñan ñoo ko commandé mais bi mu yëngalee nga sentir ni ah am na lu xew ay bopp commencé génn bugaan génn fee ñu gis benn ceen boobu génn fee alors que pour man ñoom mën nañ leen continuer di dëxañu ji nga wolof yi nee na ji nga sàq mi bii ub làmb kenn du ko sàq ci géew ab lanc bii ub làmb kenn du ko sàq ci géew pour man pour ñu mënoon a jaaxal Ousmane Sonko danaan pat bu boobaa Ousmane Sonko du xam kan moo koy opposé kan moo ko bañee kan moo ko bëgg parce que Ousmane ko benn jamono aussi bëggoon na xam lan moo nekk ci ginnaaw lii parce que affaire général Kandé yenn titres yi ñuy gis ci presse bi yenn doxalinu journaliste yi xam ne benn moment da nga naan est-ce que journalisme lan doon def parce que da ngay dégg ñu ni la Ousmane Sonko wax na ñu dagg benn wax ñu ne Babacar Fall moo koy tontu Babacar Fall en tant que journaliste politique est-ce que moom moo war a tontonteeg Ousmane Sonko parce que Babacar Fall daawul tontonteeg Macky Sall daawul tontonteeg Amadou Ba daawul tontonteeg pourquoi muy tontonteeg bu dee journalisme lay def peut-être mën na analyser Ousmane Sonko wax ci ay waxam critique ko yooyu mën na ne Ousmane wax na Babacar Fall la koy tontu est-ce que am na sens alors que Ousmane du naw lay Babacar Fall ci politique loolu da génn gi politiciens yi génn di ko attaqué yi dafa baax ci Ousmane Sonko. parce que ñi mu ko séqal séqu ko ak presse bi ñi mu ko séqal la bëggoon xam te bi mu yëngalee loolu feeñ te li ñi xeex moom duñ xeex moom ak intelligence da ngay xool assemblée nationale nga jàngat biir assemblée nationale bi day def DPG déclaration de politique générale ñu ne Ousmane Sonko day ñëw. am député benn yeew yi génn ñu ne warul ñëw moom mu bind lettre na fekk 15 jours boo leen moo woowul dinaa def déclaration publique générale maanaam daal dinaa woo askan wi woo ay experts ñu toog ma waxtaanee ko xam loolu yoon may ko ko waaw donc lu mu def moo ko tey bind lettre am Guy Marius Sagna bind ko mu tontu assemblée bi waroon na intelligent parce que da leen a dóor coup ba pare yónnee leen ministre des finance ci loi d'orientation budgétaire yónnee leen ministre des finances pour que ñu xool budget bi nan lañ koy tëralee pour ñu jox leen information assemblée bi ñàkk niveau bi ñoom ab Abdou mbaw ñàkk niveau ak ñàkk xam pour ma ñàkk xam laa ko tuddee au lieu ñu recevoir le ministre des finance ñi defante ak Ousmane Sonko xam na boobu xam nga loolu la ci Ousmane Sonko di jàng. est-ce que la gouvernement gouvernement est-ce que assemblée bi prêt na pour accompagner nguur gi est-ce que pare na pour accompagner joma ak Sonko mais assemble bi danoo wane seen jikko te pourtant li nar lin nar benn góor da doon wax naan am na ñoo xam ne li nga nar boo leen ko waxee doo leen ko def boo leen nee suba naa leen rey yow boo deful nag tey ngay dee parce que est-ce que analyser nañ génn bi. Ousmane Sonko génn ak député yeew yi parce que Ousmane Sonko communiqué bi mu bind mënoon na ko bañ a bind ah. député yeew yi ñoom Ayib Daffé génn bi génn mënoon na ñàkk mais pourquoi ñu génn mais parce que danoo bëggoon xam ñoom Abdou Mbow lan lan toogaale lan lan toogaale naka ni ñoo Abdou Mbow ñu ngi daas di fanaanal bi ñu yëngalee ñoom Abdou Mbow xam nañ ni nag ñoom Abdou Mbow li la nar conférence de presse ñoom Abdou Mbow da dégg Abdou Mbow mu génn mu ne. ginnaaw ba ne duñ recevoir le ministre des finances ci loo xam ne c'est du politique réew mi la yitteel fa lañ jëmee réew mi ëllëg ci côté budget bi ak ñoom seen mais foofu ñoom bu nu muusoon ak ñoom Amadou Mame Diop xam ñuy def dañuy recevoir le ministre des finances def débat attaqué ko posé ko ay question plénière bi xumb ñu wane ni ay républicain la mais defuñu ko pa foofu nag la nguur gi nandee ni ñi parewuñu pour accompagner ñu beneen bi ci topp ñoom Abdou Mbow dem def conférence après Abdou Mbow taxaw non non motion de censure boo leen bëggee ñu dindi ko fi dañuy dugal ab proposition de loi boo xam ne day permettre la président de la république du mënate tas assemblée nationale. kon léegi gars yi xam na ni yéen seen mbir mi nekkatul intérêt Sénégal parce que biñ nee budget bi ne Sénégal da ngeen ne ministre des finances ñun du la recevoir mais bi seen intérêt menacé woo. da ngeen a chantage nguur gi mooy bàyyi leen ñu fi ñu toog di continuer nekk député ñu may leen seen jàmm kon yéen seen problème nekkul représenter le peuple seen problème mooy na ngeen di def ba sàmm seeni i intérêt ak seen i privilège salaire yi ngeen am parce que bari na ci ñoom ñoo xam ne bu nguur gi daanoo du nekk di député pour la vérité bu leen Macky Sall dugalu ci liste nationale du nekk ci député parce que Abdoul mbaw à Thiès il ne représente pas grand chose léegi nag nguur gi nànd ni naka la ñii lii mooy seen taxawaay tey jii nguur gi boole na leen ak askan wi ba buñ bëggoon a tas assemblée bi suba benn sénégalais du jug na de te loolu ñàkk maturité politique rek mënuñ ko jural ak bañ gi ñu bañ Ousmane Sonko ba bu ñuy analyse Ousmane Sonko duñ dem ak xel duñ dem ak xel tëñax tëñax yi Ousmane Sonko ne des fois bu bëggee xam dara day ñëw attaqué leen bu leen attaqué rek seen jikko feeñ parce que jikko lañuy dem ak moom Ousmane Sonko attaqué na député yow mais ñoom mënoon nañ gën a muus recevoir ministre des finances li nar ñoom li nar du nga ko wax li nar du ko wax parce que Ousmane Sonko il joue avec le temps parce que bu dee septembre lañ war a tas assemblée bi Ousmane Sonko fekk cooli mu ngi bari da koy arrangé parce que moom temps bi lay joué li mu fexe dafa bëgg session bi jeex bi session bi jeexee ñu xaar septembre bu boobaa gars yi. nagu jëm seeraas lañuy doon wala xar mu jëm tabaski gudd fan gudd fan bu tabaski jotee dalay lay rendi te ñoom xam nañ loolu mais demuñu ci ak intelligence alors que bi nguur gi ñëwee man bu ma leen doon xelal dañuy wan nguur gi ni ñun dañ leen a bëgg a accompagne ñoom Amadou Mame Diop mais amadu comme léppam xol la ak xuloo ak mer parce que mooy président assemblée boo xam ne léppam xuloo mer ay jël ci moom dañ leen gisee ay takk der ay militaire di dugg ci assemblée nationale gedd maanaam Amadou Mame Diop yàlla rek moo ñu dimbali ba waa ji nekkul président benn fan ci Sénégal man nit ku ragal la parce que nit kàddu yu néewee maanaam du nitu waxtaan nitu woo ay takk der la nitu woo ay policier nitu defante alors que ni ko Serigne Mbacke Ndiaye waxee le président de l'assemblée moo waroon am hauteur bañ a topp les députés de Benno ci yenn nii raisonné leen ba nu génn ci yenn yi parce que li ñu dugg nii ñoo dugal seen bopp te am na lu mu feeñal ci loo xam ne ëllëg nguur gi mun na ko utiliser yóbbu leen ci yoon mooy règlement intérieur bii ñu falsifié mais loolu haute trahison la imagine leen nguur gi appuyé foofu topp le président de l' assemblée ak ñoom Abdou Mbow yi septembre bu ñu fi jugee amatul immunité ñoom seen carrière politique mun na fi jaaree yàqu parce que lii bu ñu ci defoon enquête ci règlement intérieur bi ci ñoo xam ne tey jii. ñoo fi jiiñoon ay magistrat fii corruption ñoog waa PDS yi pare pour pousse élection présidentielle mois de septembre ñii dañoo waroon def profil bas courber l'échine bu ñuy wax ci politique ñu làqatu ba ñu dugg ci yenn détails yi mais nguur gi yëngal na leen ba ñu xam nguur gi léegi xam na ñoom lan la nar te lépp nguur gi moo ko joué. moo ko joué des fois Ousmane Sonko day day génn de gars yi naan def naa ay erreur pour man moo koy tay parce que daa am lu mu bëgg xam parce que nag Pastef pour man foofu la leen mënee parce que politiquement ñoom appareil bu mag la bu ñu waree def dara dañ koy togg ba mu ñor ñu dóor ko mu daanu mais fee dañuy jékki-jékki rek benn Abdou Mbow génn wax waxam pourtant même les députés de Benno ànduñu ak Abdou Mbow am na ñoo xam ne li Abdou mbaw def gis ñu seen bopp li Amadou Mame Diop def gis seen bopp. mais jiitalu ñu xel dañuy jiital mbañal ñoom ñi ngi fi nekkoon ba léegi ci mbiri Adji Sarr defante ba bi dëkk bi tàkk ay quatre ñi ngi foofu alors que ñi nga étape boobu fekk gars yi ko weesu ñu opposé Sonko parce que loolu bu ko maanaam mbiri Adji Sarr bu doon yàqal Sonko du nekk au pouvoir ay affaire terrorisme ak ay affaire taal kër ak ay yooyu nagam yooyu yàqalu ko dara démb na la ko yàqalee teewul la mu bëggoon am na ko kon moom la mu doon def jig na ko léegi nag lappi-lappi gi yëpp li ko waral mooy système bi ñoo commencé am fit te loolu nag erreur Sonko la ak Jomaay ci man mënoo jël réew nga ne anti système wax rupture tey jii secteurs yi gën a stratégique mooy li xew RTS ba journal vingt amul ak leneen ak leneen ak nu ngi ko mën a tuddee ñun sabotage lañ ko jàppee ñu dem ba ay Mame Moussa ñoo xam ne ay syndicat Racine Talla lañ woon mën a ñëw di perturber Pape Alé Niang bu nu amee fit boobu parce que régime bi mooy ki leen ko may. parce que nag bi leen di fal daa am lu tax a jug sénégalais de gars yi ay lekk ay naan ay waaj dund yooyu baax na mais ñi doon mbaam mbaam lu ci dëkk bi ñu lawbe lawbe lu seen kaw. mooy foo dem am na ay luubal am na ay jalgati boo demee Lonase dem kudd dem RTS amul direction wala ministère boo gisul dara. mais boobu tey ñi layam-layami jàpp ñu kenn woowu ñu kenn mais bu yàggee gars yi dañ naan ñii doon soob seen audit yi gisuñu ci dara bu boobaa nag dañuy génn ñoom am fit taxaw parce que li mu doon tiit nekkatu fi te dama lay wax benn affaire de plus que mbir mi di duuree ñi leen di bàyyi ñi léegi ñi ngi génn ci télé yi di def plateau di sonder opinion bi sañ a bloqué ministre des finances à l'assemblée sañ a bloqué RTS loolu li ko indi mooy da leen a bàyyi ñu nekk seen jàmm man ku deful dara bu la kenn def dara de mais képp ku ab audit laal walla corps de contrôle ñu tudd la ci OFNAC parce que nag yi fi xew dafa bari ci inondation yi 700 li jëm ci mbiri Covid bi ak ministères yi ak yenn ci direction yi ñoo ko jiite woon tey bu mënee tëdd di lekk seen xaalis ci jàmm. mais di doxi seen soxla di tukki di yéeg di wàcc mais loolu bu yàggee la directeur u port waxoon Waly Diouf Bodian mooy opposition milliardaire lañ yor dineen ngemb seen i presse ngemb seen i lobby tey ji ay Ismaïla Madior yëpp di gën di wax heure bi dafa waroon a fekk bu leen invité ñu naan la bu ma kenn invité man kay nan ma bàyyi ma tëdd sama kër Aliou Sall génn na keneen ak kenn ñi ngi génn par benn pourtant te pourtant am na ni mbir yi doon demee billaahi ku ci journaliste woon na kaay invité nga bañ te fi mu ne nii journaliste sax woowuñu leen ñoom ñooy sonde opinion bi woote non non dama bëgg a toog ñëw wax parce que liñ foogoon ci jomaay mi ak Sonko man jomaay laay wax parce que jomaay lan fal amul te li ngeen di wax ba gars yi ñeme leen ak seen mbir yi nu mu yéexee ci nomination yi secteur stratégique yëpp ngeen ngeen bàyyi fa gars yi Macky yi ñuy rendre contre Macky di continuer di am salaire di am doole. di làmb seen poos mi am xaalis ñi dem di seeti seen i jeeg fu ne ñu dugg fa te dara fekkul leen ci wala audit yi ñu defoon bu dee ni audit yooyu dara nekku ci parce que Diomaye lancé waat na ay audit mais audit yi njëkk ya moom lan moo ci ne audit yi njëkk ya mais lan lan lan moo ci ne kenn xamul bu dee ni gars yi danoo set nan ñu wax ni gars yi danoo set liñ fekk ci corps de contrôle yi ay soob la woon rek ay wax la woon rek mais gestion bu transparent la fi Macky bàyyi nan nu ko wax sénégalais yi xam ni kat léegi ça va nice gars yi fekk ñu fi dara parce que yow lijjanteegoo dossier yële tey nga ñëw song yeneen c'est normal parce que at mu ne les de contrôle danoo war a def seen rapport de présentation wax ni li leen fekk li leen gis mais liñ doon jiiñ nguuru Macky sàll yëpp fa la toll wala ay njiiñ la woon rek wala ay wax la woon rek wala du dëgg am déet nañu ko wax bu dee ni ñoom seen yorin bu mucc ayib la woon wala danoo balaa Macky di dem daa am lu mu déggoo gaay lu ñu waxul dañu ko wax parce que fit gi ñu am li xew ci RTS te RTS la fa am ñëpp xam nañ ko RTS ñett fa ne Pape Alé na xeex ak waa RTS syndicat ba dugg boîte vocale RTS ñett fa am mooy ñiy xëy si ñiy liggéey si ak ñiy fayeeku ci man ab agent wu RTS moom wax na ma ko avant Racine di daanu mun a ñett rek ñoo fa ne. ñii xëy ñii liggéey si ak ñii fayeku ci ñii liggéey si nan leen fa téye li war ci ñoom ñu def ko ñii xëy si nan liggéey bu mënul ñu dem mais ñii fayeku te liggéeyuñ ñooñ nan dagg seeni salaire Racine Talla la mu fa bàyyi bu ko mënoon du xaar bay dem di ko def loolu nag moo am fépp mais kër gi bu mënul gàddu salaire yooyu noonu mais yoon may na direction bi ñu waxtaanee ko mais ñëw di menace ak di li opinion bi te xam ñoom ñi di wax yëpp Racine Talla moo leen gemboon loolu tax Pape Alé dafa war a porter plainte Racine maanaam danoo war a def audit interne ci entreprise yi yu fi nguur gi bàyyi ay Lonase ay poste fépp ñu xool na leen ko yore woon directeur yoo fa ne doon saboté di recruter ay nit ci loo xam ne du dëgg di fay ay weer ay nit yoo xam ne liggéeyuñu parce que bu demee ba ab Bamba Fall am fit ci mbiri marché ambulant yi naan ñoom le maire de Dakar nanu jàppale les maires de commune de Dakar nanu ànd doon benn pour mën a jàkkaarloo nguur gi ginnaaw ba Ousmane Sonko demee Colobane mais Bamba Fall mi xam ne ay quartier fictif la rapport jàppee Bamba Fall heure bi mu waroon fekk ñu naan Bamba Fall mi ngay wuy ji heure bi a waroon fekk ñu naan Bamba rapport tudd na ko ma ngay wuy ji Bamba am fitu nee na day dajale maire pour jàkkaarloog le régime loolu ci régime bi la loolu ci régime bii la ni ñuy doxee dafa yéex te liñ may gars yi dafa ëpp moo tax gars yi bi ñuy doog a falu dana teg mais fi mu ne nii boo centré ñi ngi am fit ñi nga am dool di yëngal seen i lobby te fi ñu ko bëgg a jaaree mooy les marchands ambulants en 2008 yéen a ngi fàttaliku les émeutes de la faim émeutes de la faim yooyu presque 2008 ba moo daanee Ablaye Wade parce que 2009 lan perte ville de Dakar parce que émeutes de la faim yi. affaire déguerpissement yi la woon émeute de la faim affaire déguerpissement yi la woon en 2008 avant loolu amoon na 2004 2005 mais en 2008 la gën a takarnaa si Ablaye Wade mere ci Pape Diop ñu sanctionné la coalition au pouvoir ville de Dakar jox Khalifa Sall presque foofu la daanu régime bi di tàmbalee looloo tax ñi système bi fi ne tey jii ñi ngi résister ñi ngi bañ ñi ngi bañ te loolu lépp Macky Sall mu nekk. loolu tax ñi il faut ñu am taxawaay mooy comme na Macky Sall defoon Ablaye Wade def ko waxtu wii waruñu fi woon nekk di layam layami bépp secteur boo xam ne foofu laa jeexale ab oppose nguur gi système bi da fenne da leen fóor a jëlee samp seeni nit ñenn ñi am jotu toog ci plateau yi ñuy dem di dikk ñu leen di woo ñu wuy bu boobaa duñ ko tal ba naan dañuy saboote mais seen fit wi Sonko ak Diomaye ñoo leen ko may lan moo nekk ci ginnaaw ñun xamuñu mais loolu lu jara taxaw la parce que ñi ngi résister ñi ngi bañ kon di gërëm ñëpp di leen euh, sant di gërëm El Hadj Modou Diouf Abdou Top ak ab euh, Ablaye jàlloo di jégalu ñëpp nag di baalu àq ñëpp dañ doon joxe suñu xalaat rek comme ni ñu koy defee alxames june mais on a rien contre personne mais nag <laughs> comme suñu xalaat lañ doon joxe ñu ngi noonu à vos commentaires merci beaucoup